am ku la tuuree doomam nga fu may waxe Mariam boobu si la ko tuddee man ak sama mbaam ñoo dem ngénte bi mu solal ma ba ma rafet ba may seeri sama mbaam si loolu laa gisee ay ngénte yooyu noonu ba ma ñëw ba ma del dellu pour jëriñ sama baay fii si Casamance ay ngénte yi balaa ñuy coup d'état sama nijaay si laa gis loolu yëpp saako yi ngeen di gis noonu dama ko ngént dama ko ngént ma ngénta Serigne Touba ngéntam maam Ibrahima Niass loolu noonu dama bëgg a say waa tarixa yi gan moom a mën a wax ne moom ngénta na Serigne Touba ak ban anam la ko gisee ak moom maam Ibrahima Fall c'est voilà comme nag ma ñun caaxaanul ñun caaxaanul te Macky Sall lépp lu mu def sama nijaay feeyu mandat gis nañ ko waaw mandat te ñun mbégte buñ ko amee rek gis nañ suñu bopp gis nañ suñu bopp comprendre nga ñoom nag muy seen député ne ñoo ñu war a gëstu ndaxte man ma ne sax lii li may wax nii waruma ko woon teel a wax dama waroon a xaar ba suma roi bi nuyu ma ba ma pare ma doog ne tali suma histoire te li ma la wax ni dafa mel ni génn wala bu gën a ndaw laa wax nii comprendre nga li ma wax. loolu sénégalais seen homme d'affaires yi nañu xam ne nañu bàyyi di rey xale yi xale yi ñoom a boole ak ñoom du Ousmane Sonko sax sax sax pire et dire moom si boppam dama ko dama ko ne toogal dama ko doon dama doon demee ma fàtte ne Ousmane Sonko mu ci kër ndaxte ni ñuy chaque jour may gis deret may gën a affronté sa jour may gis deret may gën a affronté si laa dem ba affronté seen criminel bi Doudou Ka man la Doudou Ka jàpp nerf bi Doudou Ka trois minutes ak kaamilu yàlla pour ma jël këru Doudou Ka nervi yi fa nekk xam naa ne pour ñu nekk góor du koy fa pour nga toll comme guy gii mooy tax nga doon góor dinaa waat te kaamilu yàlla lay andi pour dóor sénégalais bu ñemee teggi loolu na jël diine alxuraan amul mu door teg dégg nga li la wax. mais si këram laa leen fekk lan moo tax mu toj kër bi fa laa dugal sama rakay du si pax huit oto ñoo may yóbbu mais lan moo ma lan moo la leer ne du nervien mi du ñoo ma yóbbu la police kii central du fa laa rëcce yéen da ngeen ne dama tëdd kaso il faut xam ne ñëpp te duñ kaso tamit man maa tas buntu policier yi dawloo ci faro yi ma na leen ne yéen boo leen ñëwee doom leen di def ko ba xaj ak muus yi comme yoroo koy waxee may buddi ñax yi ñoom duñu dara dañu bàyyi di rey sama rakk yi dañu bàyyi yëfu caaxaan ay sàcckat ñoo fi newoon ci réew mi yàqkatu alal yi ñoo fi nekkoon ci réew mi ay toroxalkatu doomu sénégalais ñoo fi newoon nit looy doyee mille milliards lan nga koy jëndee lan nga koy tabax loo koy doyee ak sa cinq doom ak sa benn jabar yow du yëfu caaxaan la ñeneen di dee ak xiif ah di fanaan ci biti ah dof di sonn si yoon bi ñoom ana amuñu yërmande est-ce que ñoom dañuy joxe man xool lay waxee ñii bu ñu fontoo nag ñu du xale. voilà mu noonu dégg ngeen li nga xam te ne moom moo di ces différentes réactions. gis ngeen noonu kon fii ci Ziguinchor fii ci HLM Nema fii ci buntu kër ki nga xamante ne moom moo di la président Ousmane Sonko kon fii mooy gàlle ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko fii mooy kër gi fii jamono ji fii la nekk waaye itam comme ni ngeen ko xamee jamono jamu mettee dëgg-dëgg fii la ñëw toog fekkiwaat ay mbokkam ay mbokkam daraat ko mu toog fii xale yi barricade fii yëpp ba kenn mënu fi dugg ci lu dul daa moom mooy di xale yi kon gis ngeen ko noonu moom jamono ji mu ngi fii fii nga xamante ne kon moom moo di fii ci HLM Nema jamono ji nag ñuy xaar li nga xamante ne moom moo di euh, la sortie de Prost comme il l'appelle le président Ousmane Sonko ngir ñu mën a door li nga xamante ne moom moo di caravane bi cortège bi mën a jógaat tey nag dernière desti maanaam tey destination bi fële ca Kolda la foofu nga xamante ne kon foofu la ñuy fas yéene amal meeting bu rëy.